sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi nga xam ne nii yéen a seetaan fa leen nekk ci réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di leen ndokkeel rawatina ci bis yu tedd yi nga xam ne nii ci la ñu toll di waajal euh, bisub Serigne Touba Khadim Rasoul fii ci Darou Khoudoss muy bis bi nga xam ne nii ci la tànnoon dëkkaale si ak boromam fii ci Touba waaye xam ngeen ne bis bi li waral màggal gi mooy euh, ba mu ko suñ borom defee ndogal bi dafa bàyyi woon ay ndénkaane yu am solo yoo xam ne nii ki ko fi jëkk wuutu di moo Mamadou Moustapha Mbacké euh, dénkoon na ko ko waaye Serigne Modou Moustapha def ko na ko Serigne Touba bëggee woon loolu nag tax na moom jëmmi Cheikh Modou Moustapha moo jëkk a bis bi jox ndigal nag mboolem murit ñu koy taxawal fu mu nekk fu mu mën nekk ci àdduna rawatina fii ci Darou Khoudoss ba tey comme ni ñu ko àndeewoon ak yéen rek ci waajtaayu bis boobu ànd ak waa diwaanul muridina di wër mbooleem kër yi nga xam ne ni dafa aju ci Cheikh Maodul Moustapha ñoo ngi fii nag kër sëriñ Mbacke Madina ndax ku wax kër Serigne Mbacke Madina wax kër sëñ Modou Moustapha ñu ñëw nag fekk daayira bi nga xam ne nii ñooy euh, daayira bi nekk biir kër sëñ Mbacke Madina di fédération nationale ak internationale bi ñoom itam ñuy waajal bis bi naka jekk ni ko Serigne Mbacke Madina daan dundale ba ci xalifaam bii di Serigne Cheikh Bombali yàlla na fi yàgg lool te wér ak mbooleem njabootu Serigne Mbacke Madina boo leen gisee mbokki taalibe ñu taxaw nii sol seen i xam nañ ne kon ñu ngi ci dëgg digg ci dëgg ak ci digg xolub màggal gi ñu ngi taxaw ak ñoom nii ngeen gis leen ñu nekk ci waar wi um, di taxawal bâche yi euh, organisateurs yi ñu war a jox kàddu gi nag Serigne Moustapha Ndoye moom mi nga xam ne nii moo jiite organisation bi kon Serigne bi ginnaaw nuyoo ak ziar yi fii ci kër Serigne Mbacké Madina naka ngeen di waajale bis bu tedd boobu nga xam ne ni moom la ñu dëgmal. jërëjëf Euh, teew gi nga xam ne teew ngeen ko fi ngir dinu laaj ci liggéey bii nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Moustapha moo nu ko batale woon te sunu wayjur newoon ci euh, lu jiitu sunu ji sunu juddu yàlla dogal nu am taw feexe ñu itam doon ay tuut tànk waaye yàlla sutural nu nu am baaxe euh, sunuy way jur jébbal nu ci kër gi ngir nu mën a liggéeyal Serigne tubaa nga xam ne sunu dund gépp ñun. jàpp nañu liggéeyal Serigne Touba rek la nga xam ne su ngeen gisee ñii ñu àndal ñoom ñooy soldaari kër Serigne Mbacke Madina ndax seen jëwriñ ji Serigne Cheikh Mbacke Madina moom yàlla na fi yàgg moo tudde woon gone yii soldaari Serigne Mbacke Madina nga xam ne kër gi euh, lu jiitu màggal gi juróomi fan ñoo ngi fi di taxawal liggéey bi li ci war ndax di sant yàlla ci euh, diwaan bi nga xam ne moo lëkkale buntu kër Cheikh Mouhamadou Moussa yi ndax diwaan bi bi yàlla dogalee ñu lëkkale kër gi sëñ Amadou Mokhtar mi nga xamante ni mooy xalifa bi yàlla na fi yàgg mel ni sëñ Cheikh mii nga xamante ni moom ngeen ñëw ci buntu këram tey mooy jëwriñu kër gi ndax sëti Cheikh Mouhamadou Moussa yu góor yi moo ci mag. loolu di ko sant yàlla bi nga xamee ni ñun jox nañ ñu kàddu ci liggéey bi liggéey bi nag liñ ciy leeral daanaka lépp li nga xamante ni mooy li am solo lépp gaa yi wax nañ ko ci. émission yi jàll waaye tàmbali liggéey bi moom mooy li war ci kër gi daal ñoo fi jiitu. defar barab yi defar luñ ci mën a defar ba nga xam ne ku dikk da ngay agsi rek dal fekk waajal nañ leen ci bernde ak lépp nga xam ne fii ñuy duruse am na place fii ci bunt bi boo duggee foofu nga romb baas bi dana am durusu boo xamante ni dañ koy yendoo ba guddi jot mu am am jàngu bi yëkkati moo xam ne Serigne Fallou Ndiaye la doon ak ñi mu àndal beneen bi ci desit mooy fii nga xam ne mbaar mi ngeen jàkkaarloo fii la Serigne bi di yendu fanaan fi ngir euh, daayira yi nga xamante ni ak mbooloo mi nga xamante ni ñooy nimmi ko Cheikh Mamadou Moustapha tamit ci mag nag fii la ñuy ñëw di ko siyaare guddeeg bëccëg yendoo ko yendoo ko ba bët set ñu defee ni ko Cheikh Mouhamadou Moustapha digle woon beneen bi ci topp it mooy noo ngi sant tout tànk yi nga xamante ni ñoom leen seqal liggéey bi ndax biñ liggéey bi niñ ko defee mooy def nañ ko ñetti sous commission ak ay ak restauration ak installation ñu mel ni fii ngeen nu fekk ñuy liggéey nag euh, installation ci lañ toll ndax ñoom ñoo toll ci installation defar seen i base defar li ci war lépp suñ installé ba noppi nag ñu jox nag ñi nga xam ne ñooy waa restauration muy waa waañ wi suñ noppee ñoom itam danañ def li leen war togg jox jébbalaat ak ay ñu dalal gan ñi xam leen dalal jébbalaat leen ñam yi tasaare ko ci biir kër gi ba lépp loo xamante ni daal euh, jaamu yàlla la ak bernde ñu di ko def fii kon ku fi fanaan ni ko ni sëriñ li neex sëriñ bi ku fi fanaan li neex sëriñ bi mel nga ni ba ngay juddoo ci say jur ko ne xam na ne ab liir moom amut bàkkaar loolu la si mam kon noo ngi sant yàlla ci di di di soññ mbooloo mi nga xamante ni ñooy ñëw ak ñi dikk ba noppi nu xam ni Pastef bi leen fi indi nu xam ne liggéey bi kat yaatu na yaatu goo xamante ni suñ góorgóorlu wut dara ñeneen danañ jóge feneen def ko te duñ ko mën a sañ bañ ndax it ku ne xam na ni ak soppi ko am na ci góor rëy ci atum ren te nag liggéey bi ku ne bëgg na ko ndax bés bi nga xamante ni Serigne Touba ci lay dajeeg boromam ku ne bëgg na ñu jëf ci léegi nag ñun ñu am tawfeex di ci jëf ñu góorgóorlu ñi nga xam ne ñooy ñëw di ay ganit fon ak fu nu yem nan xam ne fa lañ leen yemloo fu ñu leen dalloo nan xam ne fa lañ leen dalloo te xam ne liggéey bi rek ñoo ko bokk bëgg lu baax rek la noo ngi sant nag ñëpp jërëjëf. jërëjëf Serigne Moustapha ci kàddu yi am solo yooyu kon di leen fàttali rek ñoo ngi fii ci kër Serigne Mbacke Madina gi jàkkaarloog jumaay ji ngir waajal màggaluk Serigne Touba Cheikhul Khadim fii ci Darou Khoudoss bu ñu waxee sëñ Mbacke Madina nag yaakaar naa ne jaratuñu koy présenté ca ragal yàlla ga ca maandu ga ca alxuraan ja moo tax ni mu ko waxee nii kër gi lu nu waajal waajal waajal nañ bërëb boo xam ne nii alxuraanul karim ak xasaayit ak benn rek lañu fay def ndax ku tudd sëñ Mbàkke Madina la yaakaar naa li jëkk ci ay jëfam mooy jàng alxuraanul karim taarix nettali na ko fu nekk loolu itam ni mu ko waxee euh, ci organisation bi ginnaaw ñoom ñi nga xam ne ni ñooy jiitu bu ñëwee ba def li nga xam ne ni noonu la noonu moom mooy li war a jëkk ñeneen ñi nga xam ne ni itam ëgseegunu ñoom itam ñu ngi leen di waajal di leen soññ muy wàllu hébergement wàllu restauration sécurité lépp daal képp koo xam ne nii rek naka jekk daa nga def sa loxo ak sa ñaq ak sa yéene ci màggal gi sëñ Moustapha taabal na la ci ndoy euh, ci ci ci kii bi ci euh, soññe gi moo xam ku nekk réew mi wala bitim réew kon yaakaar naa nii lañ koy fas yéene ànde ci mbooleem këri Cheikh Modou Moustapha yi ak njabootuk Serigne Modou Moustapha gi dem ci ñoom xool naka la ñuy waajalee màggal googu lépp nag ñu ànd ci ak waa diwaanul Mouridiyya di leen jaajëfal bu baax a baax di ñaan ci barkeb Cheikh Modou Moustapha ci barkeb Serigne Mbacke Madina suñu borom nungul ñu ndax damay dégg mag mu baax mu ne li tax moom muy tëjee ak ñaanam Serigne Mbacke Madina Serigne Mbacke Madina suñ borom da ko rus ba tax lépp lu mu tudd barkeem rek suñ borom da koy rus ba nungu lool kon lépp lu ñuy def ci lu baax wala ñu am yéene ji comme noonu nga ko waxee ci màggal gii ñu jëm yàlla ñu ko suñ borom nungul ci barkeb Serigne Mbacke Madina jërë ngeen jëf sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha